Serigne Saliou Mbacké doomi Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul ak soxna Faati Jaxate Serigne Touba moo joxoon digal Seex Ahmad Lamine Diop Dagana mu jox ko tur ginnaaw bu mu ganee àdduna ca njaareem fukki fan ak ñeent ci sulxijja dëppook 1333 ci gàddaay gi mu dal di koy tuddee Saliou mu ngi tolloo woon ak 22 septembre 1915 am njàngam waajuram wu góor Serigne tubaab moo ko dalal njàng laata mu koy jébbal Serigne Alassane Diakhaté mu wéyal njàngam Serigne Makhtar Dieng ak Serigne Habibou Sy tamit jàngal nanu ko Serigne Mor Saloum Diakhaté ak Serigne Abdou Damit jàngal nanu ko alxuraan jànge na it ci ku ñuy wax sëriñ Ahmed saw sëriñ Saaliwu doonoon ku ragal yàlla lool moom boroom xel koom ak njurul fukki daara ak ñeent la taxawal ci Sénégal ngir yaatal njàngum alquran ak xam-xam doonoon yitteem ak bëgg-bëggam ba borom bi defal ko ci tawféex yile daara la daal di sanci tuuba njurul njàpp ndal ak ndooka lagan daaru salaam ak ñibiñal ngijaan ak ñaaru ngaabu jannatul maxwa tuuba ak Touba njaareem got xabbaan ak dalay geloor moom juróomeelu xalifa sëriñ tuba bi maye na lu toll ci ñaari junniy kër def na ay canalisation yeesal jumaay tuba mu def ci lu toll fukki milliard ay dëkk yi nga xam ni sanc na ko ngot mi ngi ko sanc ci 1934 njurun xabbaan lagan ak ñibiñal ak ngabu ci 1993 la leen sanc njàppanal ak loogaan itam ci boobee année la leen sañc moom borom xel koom jaaga comme ni nu koy waxee borom yërmaane ji ki ndaw ñi bëggoon lool xel kom mi ngi toll ci 47000 hectares lu toll ci fukki daara ak juróom nekk fa daara bu ne am ñetti téeméer ak fukk ñett ci ay ndonga moom borom daara ji borom yërmande ji nekkoon ku yëram lool ndaw ñi ak mala yi daan sàkkloo nit ñi ay sarax ngir balaa yi nga xam ne ñooy wàcc mu man leen a fenq yërmandeem yaatu woon lool daj àdduna wërngal këpp mu nekkoon baykat bu mag daan bay di dundalee ay junniy junniy nit mu dundal leen yar leen def ci ñoom xam-xam ba ñu màgg doon ay mag yu jariñ seenum réew sëriñ Saalihu Mbàkke liggéey bu yaatu la daal def ci tëkk bu sedd bi di Touba. taaralaat jumaayu Touba rawatina barabub seexul xadim bi yàkkali mbedd yi yokku làmp yi ay milliards mu def ko ci wàllu mbënd mi ay nit ñu bari mu defar leen yar leen xamal leen jàngaleem sunu borom jaarale ko ci diglay seexul xaddim mi waajuram mu fonkoon lool ndaw ñi yërëmoon leen lool baayu sëriñ seex saalihu mbàkke ak sëriñ mustapha saalihu ak sëriñ murtada ak sëriñ abdul xaadir Info 7 avance pour les réseaux mi ngi agsi ci xilaaf ak seexul xadim gi wutu fi sëriñ abdul xaadir mbàkke ci atum 1990 aljuma ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum 2007 jëmm ju tedd ju baax ji borom yërmande ji borom daara yu bari yi nekkoon juróomeelu xalifa mbaayam seexul xaddim dëddu àdduna wan ñu ginnaaw bàyyi fi naqar ak tiis ci xar kanamu taalibe yi rawatina ndaw ñi nga xam ni moom rekk lañu miinoon mu dem gisatuñu benn doomul seexul xaddim ci kaw suuf kañu fi daan xoolee baayam ñépp jàppoon ni mooy Serigne Touba daal dinay dëddu doon lu benn taalibe murit mënta dégg ndekañu miinoon daal dinay dem wan leen ginnaaw guddi gu tiis te yàgg fajar gu metti lool murit yi di ko dund rawatina julli di Sénégal doon bu bis bu kenn mënatu la fàtte waaye muy wéy di des ci suñuy xol ak ci suñuy xalaat nde lépp sëriñ saaliwoo juróom ñeen fukki at ak ñaar la dund dundam gi du njariñal neen bi àndul ak benn loraange ki ko fi nekkal jamono ji di sëriñ seex saalihu mbake ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sëriñ tubaa sëriñ saalihu mbàkke yàlla borom bi yokk ay leeram te dolli ñoo taaf ci barkeem bu ma seet séenoo seen gisuma leen ma ma wàññi ma wàññi ko si leen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen waaye duñ tàggoo mukk lépp ñun ñi ñëpp nag tàbbi nañu ci biir loolu nee na du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko yàq loo xam ne yàq addina waa ma nee na dara lu yàq addina wala diina du ko def du jóge ci moom mukk ànd naa ñëpp ànd naa ñëpp maa yor jaam ñi te yërmande leen yore yore day ñaan mu yokk. yërmande joojee nag day ñaan mu yokk rek. te yaatal ko lool. yërmande maa ak yaatal gi day ñaan yokk. yërmande gi ak yaatal gi day ñaan rek mu yokk. maa baax a baax. nee na nag mi ngi leen di nuyu bu baax baax a baax. ñaan bu baax waaye ñaan leen di. nee na mi leen di ñaan bu baax waaye yéen na ngeen ko ñaanal bu baax. maa a baax. nee na nag mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. ñaan bu waaye ñaan leen di. nee na mi leen di ñaan bu baax waaye yéen na ngeen ko ñaanal bu baax. bu baax a baax. na nag mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. ñaan bu baax waaye ñaan leen di. nee na mi ngi leen di ñaan bu baax waaye yéen na ngeen ko ñaanal bu baax.